kalamananya nga opaharasa ta uwahaya samay jarbaat ak sunuy xarit ñi nekk ci kër yi di ñu déglu léegi nag dañuy laal juróom-ñaari araf yi jëkk ci abajadd bi te topp ci arafu fë tudd leen te bañ leen a woy nijaay asan yan jumtukaay la ñuy soxla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 yaakaar naa ne sunu xarit yi ñuy déglu ñoom mbaat ca jilaas musa ca ngaabu hawa ca ngi jiloon sëtu ca kàccot siidi ca dagana moodu ca sàkkal àlluwa ak seen morom yi ñoo ngi ci xët juróom-ñett léegi nag teg leen seen baaraam ci suufu araf wu jëkk wi janoo ak biddiw bi samay jarbaat ak sunu yi ñuy déglu ndax teg ngeen bu baax seen baaraam ci suufu arafu jëkk yu janoo ak biddiw bi waaw suñu baaraam a ngi tege ci suufu araf wu jëkk wi samay jarbaat ak suñu xarit yi ñu déglu nanu laalandoo te tuddandoo juróom-ñaari araf yu jëkk yi ci aba abajadde bi te topp ci fë te bañ leen woy aywa ma wàññi ba ñett benn ñaar ñett gë i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 ak seen yeneen moroom yi ñoom it nañu seen baaraam saa su ma tuddee araf nag ngeen laal ko aywa e kë gë lë kë më a nu defaat e kë gë lë kë më amuleen moroom xale yi gis naa ne teg ngeen bu baax seen baaraam ci araf yi yaakaar naa ni seen xarit yi itam def nanu ko waaw kay samay jarbaat ak suñu xarit yi ñuy déglu léegi nag dañuy tàggatu ci laalay araf tudd leen bu gaaw ngir tàmbali dañuy liggéey ci ñetti araf yi topp ci më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 ak suñu xale yi di ñu déglu teg leen seen baaraam ci suufu araf yu njëkk wi topp ci ma ndax yéen ñëpp teg ngeen seen baaraam ci suufu araf topp ci ma. waaw teg nañu suñu baaraam ci suufu araf wi topp ci ma. araf wi topp ci ma mooy arafu na yéen ñëpp wan araf ngeen joxoñ na amuleen moroom xale yi léegi nag na ñëpp teg seen baaraam ci suufu araf wi topp ci na. samay jarbaat ak suñuy xarit yi ñuy déglu ñu féete daara jolof ndol ndol kër soose ndindi njawdun ndoofaan ak yeneen gox yi ndax yéen ñëpp teg ngeen seen baaraam ci suufu araf wi waaw suñu baaraam ci suufu araf wi topp ci arafu në araf wi topp ci arafu në mooy ñë yéen ñëpp wan araf ngeen joxoñ ñë léegi nag xam ngeen arafu në ak ñë dañuy tàggatu ci laal araf yi te di leen tudd maa ngi jëkke damay laal araf wu nekk te tudd ko na ñë samay jarbaat ak sunuy xarit yi ñuy déglu léegi yéenay laal araf wu nekk te wax nu mu tudd maa ngi woñ ba ñett benn ñaar ñett na ña jarbaat baamtu leen ko na ña léegi nag na nu bàyyi sunu xel yi ñuy déglu ñu laal araf fu nekk te tudd ko sunuy xarit yi amuleen moroom léegi nag dañuy tàmbali yëngute bi tudd wone araf wi ngir waajal ko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 jàng ko ci kaw seen xarit yi it nañu def noonu mari lan ngeen war a def su ma tuddee aw araf nijaay dañu war laal araf wi jàng ko ci kaw tigi sama jarbaat noonu la aywa yéen ñépp laal leen na te jàng ko ci kaw na kumba waaw leen góor yéen ñépp laal ngeen na jàng ngeen ko yëkkatiwaat leen seen baaraam aywa yéen ñépp laal leen ña te jàng ko ci kaw ña waaw leen góor waaw leen kumba yéen ñépp laal ngeen ñë jàng ngeen ko niki ni ma leen ko waxe woon dinañu baamtu yëngute bii ci yeneen émission yii di ñëw ak yeneen araf amuleen moroom xale yi léegi nag dañuy dem ci beneen liggéey bu yees. yëngute bii nag dañu ciy jàng naka lañuy ñuy wàññee ay dogi baat ci baat yu ñu dégg te duñu jëfandikoo sàllu kanaara mari wax nu naka la ñuy dogi baat te duñu jëfandikoo sàllu kanaara ngir wàññi ay dogi te duma jëfandikoo sàllu kanaara damay wàññi dogi baat yi dagg baat bi ci sama xel wàññi it dogi bi ci samay baaraam su ma ci noppee wax dogibaat yi benn benn di tàccuwaale saa su ma waxee ab dogu baat su ma ci noppee ma wax ci kaw ñaata dogi baat laa am waaw kumba sama jarbaat léegi nag ngeen ak seen xarit yi ñuy déglu da ngeen war a baamtu baat bi may wax ay wayeen yéen ñépp baamtu leen amaana amaana baamtuwaat leen ko amaana badu sama jarbaat léegi nag dangeen di fàttali sunuy xarit yi naka ngeen di wàññi dogi baat yi nekk ci amaana nan ngay def ba wàññi dogi baat yi nekk ci amaana waaw damay waññi dogu baat yi sama xel waññi leen it sama baaraam su ma noppee wax dogu baat yi benn benn di tàccuwaale saa su ma waxee ab dogu baat a maa na su ma ci noppee ma wax ci kaw ñaata dogibaat laa am ñetti dogi aa gis ngeen dagg ay baat wàññi dogi yi jafewul léegi nag nanu bàyyi suñu xel yi di ñu déglu ñu wàññi dogi baat yi nekk ci baat bi ma leen di jox suñuy xel yi di ñu déglu baamtu leen masinam suñuy xel yi ñu déglu wàññi leen ñaata dogi baat ñoo nekk ci masinam yéen suñuy xarit yi wax leen ñaata dogi baat ngeen wàññi ci masinam waaw masinam ñetti dogi baat la amuleen moroom sama jarbaat yi fàttali leen sunu xarit yi naka lañuy ñuy wàññi dogi yi nekk ci masinam masinam ñetti dogi baat amuleen moroom léegi nag suñuy xarit yi déglu rajo bi ñooy wàññi dogi yi nekk ci gaañuwul suñuy xarit yi wax leen ñaata dogi baat ngeen waññ ci gaañuwul samay jarbaat ñaata dogi baat a nekk ci gaañuwul gaañuwul ñetti dogi baat tigi gaañuwul ñetti dogi baat la am waaw kumba mari waaw góor badu léegi nag suñuy xarit yi déglu dagg leen te wàññi dogi baat yi nekk ci xoolaale suñuy xarit yi wax leen lu ñaata dogi baat ngir wàññi ci xoolaale samay jarbaat ñaata dogi baat a nekk ci xoolaale xoolaale ñetti dogi baat tigi xoolaale ñetti dogi baat la am waaw kumba mari waaw góor badu léegi nag suñuy xarit yi di déglu rajo bi dagg leen te wàññi dogi baat yi nekk ci tasaaroo léegi nag suñuy xarit yi di déglu dagg leen te wàññi dogi baat yi nekk ci tasaaroo samay jarbaat ñaata dogi baat nekk ci tasaaroo tasaaroo ñetti dogi ngeen jëf yeen ñépp dagg ngeen baat bi bu baax te woññi ngeen ni mu ware limu mu baat yi nekk ci baat yi ngeen dégg Marie ndax man nga noo fàttali baat bi nu jàngoon ci émission bi weesu seen xar yi diñu déglu Elisabeth ca Fimela Buso ca Naawel Hamin ca Katakel Balla ca Sarsara Sofi ca Ndar Musaa ca Pete ak yeneen xale yi ci yeneen gox ki ak gox-goxaan yi ñoom it war nañu jéem nijaay baatu déwén lañu jàngoon waaw kumba mari badu jéem a la defar kàddu gu am baatu déwén seen xat yi ñuy déglu ñoom it war nañu jéem ren noo ngi yi déwén lanu war a def seppe amuleen moroom jàmbaar ngeen xale yi ci sunu lesoŋu tey dinañu jàng baat bu bees baat bi nuy jàng tey mooy tari samay jarbaat baamtu leen ko tari baamtuwaat leen ko tari sunuy xat yi ñu déglu baamtu leen baat bi waaw leen kumba waaw leen góor tari mooy waxloo loo mokkal te doo ko xool samay jarbaat wax leen lan la tari di tekki nijaay tari mooy wax loo mokkal te doo ko xool suñuy xarit yi ñuy déglu yéen tamit wax leen lu tari di tekki amuleen moroom léegi nag damay jëfandikoo baat bi ci ak kàddu déglu leen sëriñ daara bi mu ngi déglu ndongo yi tari samay jarbaat baamtuleen kàddu gi sëriñ daara bi mu ngi déglu ndongo yi tari waaw leen góor waaw leen kumba léegi nag damay jëfandikoo baat bi ci geneen kàddu déglu leen taalibe bi tari na bindam ba mu egg te juumul suñuy xarit yi ñu déglu baamtuleen leen kàddu gi amuleen moroom xale mari léegi dama lay jox ab laaj seen xarit yi ñu déglu danu war a teewlu bu baax te xalaat ci tontu li aywa ndax ci daara rekk lañuy tare feneen fan lanu mën a tare mën nañu tare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 ku tari bu baax monsieur Sagna neexal la amuleen moroom samay jarbaat suñuy xarit yi ñuy déglu ban baat lañu jàng tey tari waaw leen kumba waaw leen góor samay jarbaat suñuy xarit yi ñuy déglu lu tari di tekki nijaay tari mooy wax loo mokkal te doo ko xool amuleen moroom samay jarbaat suñuy xarit yi ñuy déglu jàng ngeen bu baax su émission bi jeexee ngeen jéem a jëfandikoo baat bi nu jàng ci yeneen ñett kàddu yu yees jërë ngeen jëf léegi nag nanu jàll ci beneen yëngute. xale yi yéen suñu xar yi ñuy déglu léegi dama leen di jàngal ab nettali boppu jukki bi mooy daara ja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 daara ja xale bu tuuti laa woon ba ñu ma yónnee ca daara ja maam booy dafa ma reewaloon dem daara jot ñu teg ma ci mbaam ma boq sama ëmb noona daal ma agsi ca daara ja fekk fa taalibe yu bari di kër kër yi naka laa leen gis ree jàpp ma ñu indi ma nag ci yaayu daara ji ginnaaw ba ñu nuyoo ba noppi mu tàllal ma àlluwa ak sama bind bu jëkk xaat dama foogoon ne bind boobu mooy doon sama njàng mépp ma daldi gaaw jàng ko tari ko ci kanam soxna si ba noppi ne soxna si xanaa man mën naa ñibbi léegi mu muñal doom sama fii war nga fee toog ak nun ay fan te sax bis bu jotee man ci sama bopp maa lay gunge ba nga yegg noona ma daldi toog julli nanu tisbaar te añ bi ñëwul jaaxle dikkal ma lool xiif bi di ma bëgg a rey may xalaat ak fàttaliku caakri bu neex ba ma daan naan bu yoor yoor jotaan ma ne bëreet dem di doxantu ca ginnaaw kër ga foofa ma fekk fa ay jigéen ñuy bojj dugub ma ñaan leen tuuti pepp ñu may ma ma ëmb ko ci sama lafu ngemb ma di ca lanc bu baax di sàq mi ak samay bëñiku xiif sunu kër kenn mësumaa ñemee may woggu cere tey ma yéey pepp ca tàkkusaan ja ñu indi añ ba laata may dugal sama loxo xale yi ne kirip giiroo xefa xippi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 waaw Kumba Mari Badu wax nu jëmm yi gën a fës ci nettali bi seen xarit yi ñuy déglu ñoom it war nañu jéem a tontu ci laaj bi nijaay jëmm yi gën a fës ci nettali bi xale bi la ak jigéen ñi ak taalibe yi ak ndeyu daara ji waaw góor Badu xale yi yéen daal jàmbaar xale yi yéen suñu xarit yi ñu déglu yegsi nañ ci njeextal liggéey bi nu waroon def ci nettali bi wane ngeen ci njàmbaar gu réeréy tàccu leen seen bopp waaye yéen suñu xarit yi ñu déglu laata nuy tàggatoo ak yéen bëggoon nañu ngeen tànn ab diir ginnaaw émission bi ngir jàng lépp li nekk ci xët fukk ak juróom ci téere këru sëy yi wala xët fukk ci téere këru seppe ndax jàpp ngeen li ma wax xale yi waaw nijaay xët fukk ak juróom ci téere këru sëy yi ak xët fukk ak ñeent ci téere këru seppe yéen waajur yi bu émission bi jeexee man ngeen jàppale seen doom mu bind ay xeeti tur ngir dëgëral xam-xamam ci araf yi ak ci coowi araf yi ak it gën a mën a tekki ay baat ci loolu di ngeen soxla aw këyit walla ab crayon su jumtukaay yooyu mënula am mën ngeen a jël bant def yëngute bi ci suuf topp leen yoon wii bi ci jëkk waxal xale bi li ñu jublu ci yëngute bi ñaareel ba waxal xale bi mu bind ay tur tur yooyu mën a nekk ay turi ñam ay turi malay kër walla yu àll ay turi seen waa kër walla leneen lu itteel xale bi ñetteel bi bàyyil xale bi mu bind tur yi te nga bañ koo jubbanti ñeenteel bi yow ak xale bi ànd leen jàng li mu bind juróomeel bi waxal xale bi mu jàng tur yi juróom benneel bi yow ci sa bopp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 USAID dina dugg ci kër yi ngir wéyal jàngaleem li bandu jarale ko ci rajo gogo xaat yi ci anam bi gën a baax waajur yi dongo yi déglu leen seen émission sama rokub jàng ndax njàng mi dina wéy rawatina ci tere kër gi xam-xam